أعوذ بالله سميع العليم من سر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة الشيخ الخديم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe Serigne ma Massamba di soppeeb Serigne Mbacke moom maam soxna loo Diop di ànd ak Serigne Cheikh Ali ci liggéeyal Sëñ Touba moo dellusiwaat fas yéene am ak leeral gu muy jox addiyee Serigne Touba. leeral gi may jox addiya sëñ Tuubaa nag mooy di julli ci yónnent bi sallallahu alayhi wa gannaaw ban sante yàlla di sant Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ci aw yoonam lañ juddoo màgge ci ba ràññee ci mu teg ni ci siraatal mustaqim ñuy bége loolu di ko sant bu baax ndax bu fekkoonte ne tey loolu amutoon tey jii sunu jëmm jii duñ ci rafet njort ci dara kon nag loolu ñu ngi ci sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye di santit wala ak a ñaanal mboolem ko ko fi masa wutu te dale woon ko ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ci sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla na leen yàlla dolli ay leer ndax kenn ku ci nekk lëggéeyal nga ko fi lëggéey bu duutul suulu bu mu àddina di tukki kon loolu sëñ Tuubaa rek la ko yàlla jagleel ci àddina moom la ko suñ boroom def waaye di ñaanal kii nga xam ne moo fi teew nga xam ne moo fi nekk xalifaam sëñ Muntaxa Mbàkke kenn du ko présenté fenn ci àddina ci képp koo xam ne si dégg nga lagg ko ci Barma wala nga dëkk ci biir réew mi ci diggam ak lu baax diggam ak lislaam diggam ak yonent bi diggam ak topp ay ndigal diggam ak ab yar diggam ak wax lu baax ak diggam ak jàmm lenn lu ci ne ci lu baax foo ubbee bunt ba da nga fekk sëñ Muntaxa jël ab ab ab deram lal ko toog jublu penku kooku kon ñu mën a def lu dul ñaanal ko ndax ni ñuy fonke suñu alal ji ñu def ci banque ba waxtu jot du jóg ci sa xel te doo bëgg lenn lu ca xajam loolu sëñ Muntaxa ko gën ci ñun fukki yoon ak juróom moo tax liñ ko yéenee bu fekkonte ne kenn ku nekk lay nekk ci sa xol yàlla da koy daal di convertir génnee ko installé ko ci jëmmam ji da nga xam ne nun bu ñu sañoon lépp lu ko baax di am sëñ Muntaxa lañ ko yéene ndax da koy jàggal liggéey toogul ba doon sëñ Tuubaa rek ñu door koo commencé nag naan sëñ Muntaxa nii sëñ Muntaxa na sëñ Muntaxa dafa yàgg liggéeyal sëriñ Touba ci ba mu xàmmee ba yi ba ñëw ba def la mu war a def la tàmbalee liggéeyal sëñ Touba mooy jël xam-xamam bii di ko jéem a jëfe xam-xam bu nu jëfe nag moo gën xam-xam bu nu jàng te jëfewuñ ko loolu danañu permettre ngir ñu mën a wax ci ay qualité ndax fekkee ak bi moo nu ñor te ak bi la sëñ Touba bëgg ci ñun ba sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou jëkk a jaayante fekkoon Cheikh Ibra Fall moom itamit wane aw yoon fekkoon seex siñ sëñ Tuubaa kenn ku nekk tegu ci tracé googee di dox kon danañ mën a jël ay leçon ci sëñ Muntaxa Mbàkke mii ci diggante nit ak sëriñam waaye diggante nit ak kilifam boo ci ubbi rek mën nga cee jàng ci sëñ Muntaxa Mbàkke kon duñ mën a def lu dul ñaanal ko mu yàgg fi te wér duñ mën a defit lu dul waxtu jot ñuy soññee ci lépp loo xam ne si dana tax mu yàgg fi te te du weesu ñaan ndax la ko dale ci bañ xamee ba fi ne magam ju tedd ja moo àndoon ak Cheikh Abdoul Ahad loola ràññeeku na yaakaar naa ne jëratul dellu sëñ Moustapha Bassirou ak sëñ Abdoul Ahad kenn du ci dellu loola moom dana dana jaxaran waaye ba fi magam ji jógee ba nëgëte mu wutu fi sëñ Bassirou nekk ab xalifaam mboolem kum jamonoonteel ci xilaafi sëñ Tuubaa yi fi jote jaar lëggéeyal nañ la lëggéeyal na la ba làq ngërëmam loolu moom amul lu ñuy wax ci pour lu neex nit wala lu neex waa Daaru Minan wala lu neex murid wala ñuy wax noonu loo xam dañ ciy bëgg ab sag dañuy wax yàlla tax ku nu xam ku nekk yàgg nga xam ne noonu sëñ Tuubaa moo nu ñor kenn ku nekk sëñ Muntaxa raw na la ci tër bi lool boo ko doon dàq fii ba àddina di tukki doo ko jot te loola dara mayu ko ko lu dul pas-pas ak gëm gum gëm sëñ Tuubaa te muy dëgg ci moom mu jël yaramam jël jëmmam jël njabootam jël alalam jël lépp lu mu yilif jébbal ko sëñ Tuubaa te wa maa bi ma bimaa alimnaa loolu moom mooy lu wér te li ma wax moom assumé naa ci samay responsabilité noonu la ànd xoolal sell gi mu sell ko fi ko sëñ Saliou tegoon moo tax kenn kenn kenn jooyul sëñ bu Mbacke bi fi jógee ndax taxawaayu sëñ Mountakha Mbacke bu rafet ànd koog njaboot gi def lu rafet def lu baax sëñ Mountakha bu sañoon tey jii ñëpp ñëpp ñëpp siraatal mustaqim la ñuy tegu te moom dong laa mën a jàpp ñu ne bu taxawoon ne li ma yéene sama bopp laa yéene nit ñëpp man danaa ko gëm ndax aw jëfinam la ba fi sëñ Saliou jógee li gën a jafe mooy la sëñ Fallou defaloon sëñ Modou Moustapha ne ko dann xëtalu ko yàqalu ko ci dara. ba sëñ Modou Moustapha réussir mission noonee it la daal di sëse ci ki nga xam ne mooy sëñ Alaaji Baara topp ko di ko liggéeyal ba gis ngeen ne la mu def ci bi fi sëñ Baara jógee diir bu gàtt bi yaakaar naa ne wumpul kenn sëñ Baara amoon ak moom ci cofeel ba jóge fi dem Poroxaan seereel ko fi seere su rafet mu liggéeyal ko liggéey bu rëy ba yàlla dogal mu jóge fi lépp sëñ Muntaxa ba mu fi jógee kii nga xam ne mooy sëñ Sidi Moxtaar diggam ak moom mën naa ne sax dafa dépassé diggante nit ku bokk ak moromam day ak bàyyi waaye dañoo jaxasoo woon jaxasoo goo xam ne lépp lu sëñ Muntaxa sëñ si di Muxtaar la yëkkati ci sëñ Muntaxa la koy jaareel waaye lépp lu ko mas a jaaxal bu sëñ Muntaxa ñëwee xelam da cay dal rus sëñ Muntaxa lool te lam ko rusee mooy taalibe gi nekk ci moom ba loolee ñëwee ci moom na nga xam ne liggéey na ba liggéey jotee ba ñépp mën ko rey ci taalibe kon nañ ko noppal ci xilaafaam jii mu nekk kenn ku nekk jëlal ci sa jëmm nga jox ko ci addiya loolu nag lu mat a leeral la addiya ji ñu koy jox ci suñu jëmm nag du yoo que ne taalibe yi sant sekk yi sant jóob yi sant jaw yi sant neneen yi sant neneen képp koo xamee ne yaakaar nga sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa nga kon na ñépp taalibe yépp maase kenn ku nekk jël sa jëmm jox ko ko addiya ni nga koy jëlee sa jëmm jox ko ko addiya nag mooy fexeel ba lépp lu nuy tere buum ca gis ak njabootam te bu mu ci gis njabootam mooy bu mu ci gis njabootam sëñ Tuubaa kenn ku nekk foo mën a nekk ak lu mu sori sori sori na ngay sàmmanteeg loolu soo ko defee addiyee ji nga jox sëñ Tuubaa mënoo ko jox ay milliards ba dab addiyee jooju te loolu mooy lan mooy ak jub kenn ku ci nekk bu féetee foofa nekk ci la war a nekk comme na jëmm ja ñëwee woon ci sëñ Modou Moussa Mbacke mi fi jëkk wutu sëñ tubaa nekk ko Mbacke dama laa yërëm mu ne ko ci loo ma yërëm mu ne ci xilaafa gi nga nekk muy yan bi dafa diis lool. sëñ Modou Moussa ne ko loo ma ci bëgg a jàppale mu defee ne ay alal la wala xam-xam wala ay xalaat sëñ Modou Moustapha daf ne ko fexeel ba téyel ma sa jëmm ji rek di sax ci ak jub tey dox ci jub soo ma téyelee sa jëmm ji ci loolu rek dimbali nga ma ci yan bi kon loola it mooy répété ñëw ci sëñ Mountakha Mbacké ndax képp koo xam ne si tey jii nekk nga fa nga nekk di bay sa waar ci ormal sëñ Touba ak di liggéeyal sëñ Touba ak di jaamu yàlla jox nga sëñ Mountakha addiya ji gën ci addiya yi te mooy fexe ba nekk ci baatum xoddan rek jub kocc kooku nag jombul kenn ñaan gi mu yàgg fi tëwér aw làmmiñ mënu mënu ci dara ndax làmmiñ moom xëy na boroom mën na caa wax lu mu gëmul wala borom mën na caa wax lu mu yéenewul waaye yàgg fi tëwér ñaan gi gën a nangu mooy kenn ku nekk fexe ba lañuy tere teree bu mu ko gis ci yow wala bu ko dégg ci yow wala bu bu xoolee bu mu ko gis fenn ci yow loola mooy tax ñaan nangu ndax ci aw melo lay doon waaye du doon ci aw làmmiñ ndax nit mën naa wax lu mu gëmul nit mën naa wax lu dul def waaye yàlla na nga fi yàgg te aw meloo koy wane bu ñu ko meloo melokaan woowu dañuy ormal sëñ Touba ci jëm si kenn ku nekk ci sa jëmm fexe ba foo nekk mel na sëñ Touba ngi toog ànd ak yow na nga koy ormale boo sukkee ci wetam foo mën di nekk ci àddina bi ci suufu Sénégal ak suuf su dul Sénégal nanga nga ormaale sëñ Tuubaa noonu mel ne mi ngi ci sa loxo ndeyjoor ànd ak yow te du fa jóg na ngay dammee sa bëti woom di damm say xef di téye saw làmmiñ noonee nga sax ca dàkk boo ko defee addee ji ngay jox sëñ Muntaxa dana tax bu bu ñu bëggoon mu dund fi junni at yàlla dana ko ko def waaye am na melokaan yoo xam ne si nag moom dafa jaaduwul fa jaaduwul jaaduwul ci Tuubaa jaaduwul ci xilaaf ak sëñ Muntaxa nañ ko bàyyi xel bu baax ndax bu ñii di gas ñële di suul ab coonaa fay bari waaye pax du am coono rek a fay bari waaye pax du am kon nañ ko jox addiya ci sunu jëmm jii di sax ci jub suñ toogatee ci kanamam nañ xam ne sëñ tubaa lañ toog ci kanamam koo xam ne nag bu sëñ Tuubaa toogan ci sa kanam jeexran dana am doxin woo dox boo ko wutalee toogaayu sëñ Muntaxaa bii nag saye boo nga seetaat ne neneen noo def mel num sëriñ Tuubaa fi ne moom lañu moom lañ sukk jëbulu ci lañu sëñ Muntaxaa Mbàkke jiite te moo ñu ci man ndax nee na ku dem ma dem ku demul ma dem kon nag demam googee nañ ca fexe ànd ak moom te xam ne ku mu raw kat da nga te lii ñuy xëccoo ko wax àddina jëru ko àddina jëru ko ndax ku nekk jaar nga fi jàll kuñ ne borom yoon wi tey jii muy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet nekk ñaari fukki fan ci muharram andi nañ ko tuubaa tey war ngaa xam ne yàlla la fa jële sëñ Touba du la fi bàyyi sëñ Modou Moustapha nekk fi. bañ xëy déclaré en 1945 wax ne wàcc na ab liggéey kon xam nga ne la yóbbu Cheikh moo Moussa du la fi bàyyi sëñ lu Mbacké ci li nga xamante ne si mooy le 6 août 1968 ñu ne Cheikh sëñ Fallou Mbacké jóge na fi muy jàmbaari sëñ Touba ji njëkk a jébbalu ci moom ci njabootu sëñ Touba wane aw yoon liggéeyal ko topp ci gannaaw magam jëtta mësu koo xatal mësu koo sonal ñu ne sëñ Fallou Mbacké ñëw na tuubaa ba ñu denc ko. war ngaa xam ne la fi indi sëñ Fallu du la fi bàyyi ba ci nag bërki dee moo njaay sëñ Sidi Moxtaar mi nga xam ne wet gu ne nit daana fa jóge daayira daan fa jóge ñëw di ko siyaare teg am na ci ñoñ gis ko bët moo leen gëraloon lépp tey ñu dem ba ca baraag beneen la ma ngi tëdd fii kenn ragatul kër gi kenn defatu ci dara war ngaa xam ne la yóbbu sëñ Sidi Moxtaar la fi bàyyi kon sëñ Muntaxa mii nañ ko def patrimoine fonk ko toppatoo ko te xam ne ci la sunu tey ak sunu ëllëg di baaxe bu ñu ko deful dañuy sonal sunu bopp waaye bu kenn ku nekk bëggee jël sa kilifteefug bopp bu sëñ bi waxee nga commencé di critiquer kum yónni nga commencé di critiquer kum waxloo nga commencé di critiquer loola dama ne ak wàññeeku taalibe la te wàññeeku taalibe nag yàlla na ci yàlla musulub jàmm ña nga xam ne it ñoom ñoom ñoo nekk ca moom nga xam ne bañ fa nekkee it jàpp nañ ne. liggéeyal sëñ tubaa leen fa bàyyee na ni moytandiku lu sëñ tubaa bale ba sànni ci biti ñi di ko bëgg a tooge walla foofa muy lu yëngu ci politique nañ ci rus sëñ Muntaxa Mbàkke ak koo mën a doon nag ak loo mën a doon loo nuroog politique nañ ci rus sëñ Muntaxa Mbàkke ndax moom politiqueul politiqueul xamul politique xamulum safaan it sëñ Muntaxa Mbàkke jàpp na ne ñëpp a baax jàpp na ne ñëpp a baax te taalibe sëñ tubaa yi ñëpp a baax xëy na ñàkk a déggoo mooy am ak ñàkk organisation mais ku ne aslamtu nafsi moom bënatu moo ko taxaw ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yéen a bokkub at mënatoo bon gémmiñ gu nangu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yonentub suñ borom bi mënatoo bon waaye gémmiñ gu nangoo taxaw wax ne laa ilaha illallah mënatoo bon kon nag manque d'organisation moo waral coow li waaye ñépp a baax kon nañu topp ndigal yi sëñ Muntaxa Mbàkke ndax moom jëppul ne kenn dana defab safaan na sëñ Abdou Xaadir Mbàkke meloon noonu laa jàppee sëñ Muntaxa ndax am na ku mas a ñëw ci moom sëñ Abdou Xaadir ni ko di ko nettali ku tooñ doomi jàmbur di ko gaaral ne ko maanaam daal doom ji daa juddu amul bàyyi mu muuñ daan ne loolu dañu ngi ko mujj a ci yónent nangam wala yónent sàngam moom jëppul ne lu ñaaw am na te fekk na ñoom lañ jubloo wax du loolu waaye ñoom it loola baare leen ba ñu ñemeetuñ ko sax a wax action ba nam demee loolee moo wàcc sëñ Muntaxa Mbàkke mii moo tax lu ko waay wax mu gëm ko ndax jàpp ne nag kenn du def lu bon na nag kuy tuddoo sëñ Tuubaa kon nañ jox addiya sëñ Tuubaa ci suñ jëmm ji nañ jox addiya sëñ Tuubaa suñ jëmm ji ngir ñu mën a ànd ak sëñ Muntaxa mu réussir mission bii loolu mooy li nga xam ne taalibe bu nekk foo mën a nekk war nga koo def ak taalibe mënta yóbbaale moroomam ci lu baax waaye kenn ku nekk la ngay jëf yaa cay ànd ak nit ngeen ànd di def lu baax yéen ñëpp ngeen texeendoo waaye kenn mënul na yàcc na yasar kenn di ko yu yóbbaale ci lu baax bu ñuy taxawee naan yàlla na fi yàgg te wér ñenn ñi di wane ab ab safaan ci kanamam ay jafe-jafe dong lay jur kon nag nañ ko yërëm kenn ku nekk nga jàppe ko sëñ Tuubaa ju wér waaye kenn ku nekk jàppe ko say waajur bu wér loolu daal bu nu ko defee danañ ko noppal danañ noppalu sëñ Tuubaa danañ danañ daje ngërëmam te suñ borom danañ dana bég te bu suñ borom bégee rek na nga xam ne lépp ay baax jafe-jafe yii di am yépp ñoo ko teg suñ bopp ndax inna allaha la yuqayyiru ma bi qawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim yàlla la mu doon joxe tëbul tëb sensé ko mais yoon wañ wam ñu ko doon joxee yoon woowa lañ wàcc ku wàcc wa yoon nag dara du baax nañ doon ay taalibe doon ay taalibe fas yéene def sëñ Muntaxa mi muy sëñ ndax mooy garab gi nga xam ne kat ci la xob yépp branché mooy dàtt bi kat ci la garab gi de branché kon nag nañ ko waggar nañ ko fonk nañuy wax dëgg nañuy jaamu yàlla nañuy liggéey nañuy am orma ci sëriñ Touba am orma ci njabootu sëriñ Touba am orma ci dëkk bii di Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh